vidéo ba ñu commencé dugg ci YouTube bi mhm. la ma ñenn di ma woo naa ma pourquoi pas doo éviter compte parce que gis na à chaque fois may duggal samay statut kon macha allah mhm. mbégte lay am à chaque fois di di di di pelloog yow mhm. mais balaa may posé waa beneen question damay bàyyi ki nga xamante ne mooy soxna Diouf am amaana am na lu mu bëgg a ki nga xamante ne mooy soxna Khoudia euh, waaw xaritu baayam amaat Diouf man question bi may posé benn question rek la bëri mooy dama gis benn complicité entre soxna Codou ak soxna Khoudia. Mm-hmm. ndax ñoom suñuy bind seeni woy dañuy bokk assisté ko wala kii day woy à part kii di woy à part parce que dama gis instant bi nu ñuy woy benn complicité bu am seen biir mel ni ñoom ñoo toogoon di répété. waaw mm-hmm. question boobu yéen ñaar yéen ko moom. waaw question boobu kontaan naa ci tontu ko. ndax li mu la wax léegi. Mhm. waaye juróom day fent ay way te macha allah yàgg na fent te Alassane yàlla na daal di fent rek. Alassane ci ba am téeméeri at loolu laa koy ñaanal Alassane seeni ndax li maamum Seydina li maam alayhi salaam jàngale moom da ci topp wax dëgg yàlla caw seen ak Alassane mi ngi ci way yi en même temps mi ngi ci alxuraan bi ci dënnu jigéen ñi. Mhm. di ci def alxuraan bi macha allah di suñuy yaay. di suñuy mag di suñuy rakk di suñuy doom kon li maamam digle daal mi ngi ci aw ci maamam Seydina Issa Rohou mi jur mi nga xam ni Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaam moo ko jur ak maamam Chérif Abdoulaye mi nga xam ne mooy waay juru euh, sëñ Cheikh mi nga xam ne moom meññ soxna Koddu mhm. kooku tim jàngaleem dafa rafet Alassane ndax laata muy nekk xalifa da dem fu nekk di toj dama koy sant yàlla ndax yàlla dogal na mu bokk ci tout tànk yi nga xam ne jot naa fekk sëñ Ablaye fu muy firee ba jot naa ko sax si karal wax dëgg yàlla te loolu ndar la ma dale ma ko sant yàlla nga xam ni yàlla lu mu dogal rek am na lu tax mhm. te te fent yooyu bàyyam di fent maamam da doon fent parce que yaakaar naa sama premier clip mhm. muy soodaan sëñ Ablaye moo woy woy boobu te ci seen jeexita rek la ñuy topp Alassane yàlla na ko fi yàlla yàggal. mu yàgg jiitu njaboot gi yàlla topp. ci barke Baye Laye ak Seyda Issa Rawalaay loolu nga wax noonu bu ñu fentee rek. wax ñu teg ñu ci yoon bi rek macha allah buñ ko xasee ba dégg loolu moom fasaaxa bu yàlla def ci. kër Seydina Limaamu Laay ñu koy sant yàlla nag. nee naa dara du hasard ndax sanga boobu alayhi salaatu wa salaam yàlla ñu ko yàlla fayal. amiin incha jigéen bu amee cër ci diine rek dañu koy sante yàlla. mais di ko sant Seydina Limam alayhi salaam. parce que bi nga xamee ni jigéen yàlla dogal na Seydina Limam bu jël baat bi jox ko. addina yëpp daal ni baatu jigéen awra la. Mm-hmm. muy tudda yàlla. Seydina Limam mu ni wax leen ko bu soobee yàlla ñëpp dinañ leen ci fekk si. Mm-hmm. alayhi salaam kon dañu koy ñaanal yàlla yokki leeram ndax dafa jox ci yéen cër ci diine ba tax na loolu muy turu yàlla woowu ñu ñu nàmpatal ñu ci suñuy waajur luñ judd fekk ñu nekk ci di ànd ak xalifatul muslimin yal na yàlla ñoom yokki seen leer fa ñu nekk ñun ñu xiirtal ñu ci loolu dugal ñu ci daayira bi ba ñuy nekk tout tànk di ci dem di ci dem ba loolu moo waral mbir mi doonte dina metti mais day oyof day oyof parce que nga judd ñu nàmpatal la ci laa ilaha illallah nga nekk ci ba nii nga màggee ba am ay doom sant yàlla moo waral mbir mi su mettee tamit ñun day oyof ci mm-hmm. parce que laa ilaha illallah nag yombul kon bu ko yàlla jagle rek danga mm-hmm. koy sant yàlla jagle yàlla suñu borom la macha mm, allah mm-hmm. eh, soxna Codou comme ni ma ko waxee woon rek parce que gis nañu premier eh, zikaram yow yaa ko feelu woon eh, lu waral complicité boobu waaw lépp benn la xam nga fii amul xujj fii Codou fii ñu ñoo bokk lépp Mhm. ñooy sikkarandoo buñ fentee tamit ñun la ñuy woowandoo ñu toog rek def répétition bi moo tax moom lu mu fi mu ne nii lu mu woy man ma aaw man tamit noonu la demee amul benn problème suñu kii yëpp yomb macha allah mi ngi noonu. Euh, macha allah soxna euh, xaritu baayam man dama lay delloo kàddu gi rek. waaw bien sûr macha allah am nañu contentement bu baax man fi may ñëw ci soxna. Khoudia euh, damaa bëgg nu ñu comme ni ñëwee woon sànq ci li mu ko génne ci clip am jotam ñu mën a may sax xam naa ne macha allah fan si yaa ngi xaar sa baat sa voix li nga di ko génne ci clip boo si mën a baax nga Soodaan lu ngëm ngëm bay gaaral suñu yónnee sanga Soodaan bajeen ji bee la bokk yépp keefoo ñu naan ka wax ji rëy na maam li mu yëkki baatam ba ca kaw ñu yéemu bàyyi laay ni aaji boo daay laay mooy wax jëwoon ca yaa rasuulu laay sa nga yoof laay ñu ngi lay gëm di la doyloo di la yaakaar di la doyloo di la yaakaar di la doyloo di la yaakaar. di la yaakaar macha allah barakallahu fiikum ah, macha allah yàlla na yàlla xeeb doole baax mi neex yàlla yàlla gën a a seen i baax ndax man moom sama xol seen na te gëm a ne ñii di ma seetaani seen i xol seen na yàlla na yàlla fay leen yiw xam naa nag eh, fi mu toll ci nag ñu xalit ci li eh, xanaa rek di leen laaj benn question yi ñaar koy bokk nan ngeen waajalee seen appel bi nga xamante ne allah léegi mu ñëw appel bi yii di ñëw la di la 16 ak la 17 ak jàll. waaw nañ ko daan waajale rek. Mhm. di li bàyyi laay salaam waxoon. Mhm. ni yaatal leen sàqati mhm. xajeel gan yi. ku ñëwul gëm bi nga ñëw ngir xewul si. am na nag ñi nga xam ne dañuy ñëw ñëw gëm nañ dañuy ñëw feddali. am ñaa xam ne fas yéene nañ ñëw pour gëm. am ñaa nga xam ne dañuy ñëw pour xewlu si. kon laay Mamadou Maxtaar muy murit bi. di tiijaan bi di xaadir bi di ñaseen bi. di cene ba cene ba ñi nga xam ne sax duñ ay julli te soppal ñu seen bopp ñu ngi woon ñëpp. Mm-hmm. ci appelu Seydina Limam Laay boobu alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. di le 16 avril ak di 17 avril. fii ci Cambérène ñu koy ubbee fii ñu nekk. Mm-hmm. ak fële ci Yoff jàmm laay fas yéene ci woo jullit yàlla yëpp nag. di wax nag bépp laayal ñu génn néegi. saal yi xajeel gan yi. nga xam ne woote alayhi salaatu wasalaam boobu moo waral lépp. te ku am gan dañu da kon daal ñu ngi fas yéene daal xaar jàmm yàlla yi mhm. ci woote boobu yàlla may ñëpp paas ak paase ñun ñi nga xam ne ñun la ñuy fekk si ñun ñooy ubbi appel bi di waa Cambérène mhm. yàlla may ñu xéewal mhm. bu ñu terale jàmm yàlla yi defal ko Yoff defal ko bépp saaba Seynaa Limaamu ala rawatina nag ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci diaspora bi di ñu seetaan mënuñu leen fàtte ndax li may wax rek soxna Kodou dox na jéego yi ba fekk leen bitim réew def naa ko man it ànd ak suñu sang bi di sama nijaay sëñ Cheikh Mbacke. Mhm. ak suñu sama càmmiñ Omar Ngala. ma xam ne seen diine réewu leen macha allah fa ñu ne ca bitim réew. Mhm. ku leen fa fekk naw leen. Mhm. góor ndax ñu ngay góorgóorlu tukkiwuñu rek seen diine réew leen. kon yaa leen yàlla may dégg ak topp defal leen xéewal ñu appel ko fii fas yéene ko tamit appel ci bitim réew. di invité jullitu yàlla yëpp daal di ñaanal ñëpp daal. koo xam ne gëm nga Seydina Limaamu alayhi salaam mm-hmm. ñu ngi lay ñaanal ak képp koo xam ne fas yéene nga tim soppal ñu sa bopp ñu ngi lay oo di la ñaanal jàmm ak salaam suturay àddina ak bu àllaaxira yàlla defal ko ñëpp maa ngi woo daal ñëpp góor jigéen mag ak ndaw mm-hmm. bàyyiwuma kenn mm-hmm. soxna Kodou ma bàyyi la kàddu gi Alassane waaw soxna ni ko soxna Khoudia Mbaye laay waxee rek ñu ngi woo ñëpp ñu ngi woo soppe yi ñu ngi woo am di jàmbe yi ñëpp ñu ngi woo murit Tijaan Xaadir Laayeen ñëpp ci biir parce que laay moom ñëpp la woo. Mhm. ñëpp la woo kon boog yaatal nañ ko ba mu yaatu macha allah yokk nañ saal yi génn nañ suñuy néeg ñu ngi xaar gan yi na ñëpp ñëw incha allah yal nañu yàlla may ñu fekk ko jàmm ak salaam. incha allah ci barke bàyyi laay mu baax ma woo nañ ñëpp. macha allah woo nañ ñëpp te am naa yaakaar ñëpp dinañ leen wuy si ndax macha allah amul xaaj amul seen ndax ku ñëw ci tari Cheikh Mbacké Laye bi nga xamante ne moom lay amal ci koor gi mm-hmm. nga xam ne ñoo boole murit beeg tijaan beeg ndax façon mm-hmm. sikkar bu ne di ko fa dégg mm-hmm. kon nag ñëpp incha allah gëm naa dinañ wuy si ndax man daan naa fi ñëw gis naa li ngeen di benn le gani man rek moo fa jiitu nee ma mas la bàyyi di la wax euh, lan ngay tàggatoo ak sa gan lan ngay tàggatoo waaw eh, xaritu bàyyi di am mbégte ak contentement rek ndaxte yaakaar naa ne woote ñu wuy si la dafa neex mais na nag nga soxla ay célébrité ñi nga xamante ñëpp a leen di wër ci àdduna su leen neexoon rek ñu ne ñii ay xale la ñu ngi soog a mais defuñu loolu dañ ñoo yaatal ubbil ñu seen bunt kon amuñu lu balaa ma wax leen di leen remercier muy soxna Koddulaay ak soxna Xujalaay macha allah bu weesoo loolu chers internautes Kay Seetaan TV lii leen leen rek ci seen émission. xamal ma ma ànd ceeg euh, soxna xaritu baayam rek euh, ma leen di remercier bu baax di leen jox dig daje ci beneen émission may euh, laaj rek soxna Khoudia moom lu muy tëjee dernier mot incha allah. ah yéen ay seetaan ma TV bi dama leen di ñaanal. yàlla yokk seen promotion. ci kaw ci kanam ci lu baax parce que lii nii lu rafet la. bu leen neexoon ngeen ni fa ngeen yam rek. fa ngeen nekk rek fa ngeen di yam yamaleka fa mhm. mais da ngeen di yaatal nga xam ne diina ji lépp benn la mhm. ndax nee naa muy soxna kor Koddu di man nii li ñu sopp te duñ ay laayeen yaakaar naa ñoo ëpp mhm. murid yi ma sopp xaw ma nu mu toll tiijaan yi xaadir yi ñaseen yi cene ba cene ba ba nee maa ngi koy wax léegi ñi nga xam duñ ay jullit sax ma am ci macha allah ay xarit ñu may oo téléphone kon am na la nga xam ni bu ko yàlla defee rek ak sant yàlla la ba tax ñu ngi di leen ñaanal nag yàlla yokk promotion yi. ci ormay bàyyi laa yàlla ñoŋal seen liggéey. fa ngeen bëgg egg ci seen liggéey yéen a ko xam. ñaanal mhm. leen fa yàlla egg mhm. eggale. Mhm. ñaanal nag ak lu doy ci rasool. ndax woote bi diis na lool alayhi salaatu wa ñu leen di ñaanal yàlla may leen ndam yu mu leen daan may muy bàyyi. di bàjjeen yi di doom yi sëti jarbaat yi. ak soxna yi bàyyiwuma kenn ak lu doy ci Rasoul saa su ne jàmm laa leen di ñaanal ala rawati suñu nijaay ji nga xam ne nag mi ngi dëgmal bis muy avant premier appel di ko defee ci grand théâtre incha allah ñu ngi jaay Cheikh ñu koy ñaanal yàlla may ka ndam yu raw yam daan am ci ormay Seydina Limaamu alayhi salaam maamam wooteem bi ormay maam Seydi maamam ba ormay baayam Chérif Abdoulaye yàlla may ka ndam yu kawe njortam defal ko ay magam ñi nga xam ni mooy ku mel fas yéene ko defee fii ak bitim réew ñu fas yéene ci ànd ak ñoom lépp ci oto bi daal yaa ngi leen yàlla may ndam lu kawe seen jot ci ormay Seydina Limaamu di ñaanal sama sang sama doom parce que yaayam ñoo bokk baay mhm. kon sama doom la pare nekkaat sama sang sama ndijaay jur ko muy nag ku joxe cër ku toppe mhm. bu ñu toogee ci tànt lu mu am jël na jox ma lu ma ci def noonu la mhm. te du wax kon Alassane sang dëgg nga jikkoy sang nga yor yal na yàlla jàppale la sa ormay maam yàlla daas sa baat lu ma la yéene la doo laay azim ci géew bi yal naa ci jiitu te xam ne lépp lu baax la alasaan sa toppin rafet na yal yàlla may dégg topp di ñaanal si karkat yu góor yi si karkat yu jigéen yi di leen ñaanal yàlla daas seen baat ba ku ne li nga bëgg ci oto bàyyi laay bi yàlla defal la ko. kontaan nañu di. Mhm. ñaanal seen caméraman bu ñaawul bi. Mhm. moom yàlla na yokk ba yëkkat di mhm. seen allah ji jiite leen. yàlla yokk xéewali. ñu nit yàlla xaw ma am ngeen borom kër wala déet. man am na nga yàlla yàlla yokk la sa ak sëriñ bi. soxna si amagoo. yàlla nag yàlla may ci ootay bàyyi laay alay wala ooto bi wala bu jàllee rek yàlla nga dégg alxer yi ñu ci gën ci yow nag. yàlla yokk xéewal kontaan nañu lool di ñaanal sama borom kër. ndax mënoon naa ko tàggu rek. Mhm. mu tere ma ndax nee naa mooy sama borom kër mais en même temps mooy sama ménager tamit may jàppale. di nuyu sama njaboot Baye El Hadj Madoune Baye. Mhm. Ablaye Thiaw jiite leen ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew. yàlla defal leen xéewal ci góor jigéen mag ak di nuyu nag ñëpp bépp Akulay daal Akulay daal maa ngi ziar ñëpp. Mhm. di wax ngeen seetaan kaay seetaan ma TV. ci barke Baye Laay alayhi salaatu wa salaam wa salaatu wa am nañu incha allah macha allah rafet na. li mhm. nga ñaan am na solo yaa ko yàlla boole. amiin amiin kon soxna Koudia soxna Fodou. Mhm. Euh, dama lay laaj yow la sa mot de la fin. waaw mot de la fin mooy di leen remercier rek ci disponibilité bi ngeen am mhm. ñoom suñu kër seet ñu. kon loolu ñu leen di jaajëfal bu baax Kaay Setaan TV. waaw di leen ñaanal ngeen yokk ca kaw a kaw. Mm-hmm. yàlla na télé bi ubbi. Mm-hmm. ci barke Baye lay salaam fii daal bu ngeen fi jógee. Mm-hmm. yàlla ngeen yëg yokkute xalifa général des Laye yàlla na fi yàgg lool te am wér yàlla yàlla ko di ñaanal sama wajur Serigne Cheikh Mbacke Laye di ñaanal Baye Ndiine sama papa jooju di ñaanal tamit Idrissa Thiaw. moom mi nga xamante ni moom moo ñuy tette ci wàll wi ñu nekk nii moom moo ci nekk ñu di ñu tette macha allah. Mm-hmm. di leen jaajëfal di jaajëfal soxna Koudia moom tamit moom it ku baax la vraiment sama xarit la du ne laa koy wax noonu laa koy yebee te sama yaay la. bu koy jaajëfal ci oyofam. Mm-hmm. ndax ko oyof la mi ngi nii nitu kese la macha allah. Mm-hmm. kon boog soxna ko jëf. yàlla la yàlla bàyyi sa baat. yàlla la yàlla bàyyi laay mu baax ma. yàlla gën la yokk di bàyyi laaj sa borom kër. di sant sama borom kër tamit bu baax a baax. maa ngi koy sant bu wér di ñaanal sama yaay moom it. yàlla fi yàgg lool te am wér di ñaanal ñëpp di bëgg soppe yeeg julli ji ñëpp yàlla may nu jàmm may nu salaam. Mm-hmm. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah kàddu yi rafetati na defe naa ne chers internet Kaysitaan TV def naa ne kontaan ngeen bu baax a baax li nga xamante ni moo la fi soxna yu baax yi yëkkati euh, ñëpp pour li ci wax rek ci xol lañ ko jéem a ñëwoon di gis si biir xol. kon lii mooy li nga xamante ni moom lañ indiloon ci seen émission bi di xamal ma lu dugg si nag yi xëy ci tiin bi man nag contentement bu rëy rëy lay laa am. jaakaar mm-hmm. la sama sotti bii ndax bii bu ko demee wax dëgg neex yaa foogee ma ko li surprise bu mag la si ñun mm-hmm. comme ni ko Binouche waxee rek bu lañ nekkoon ngeen bañ waaye macha allah mm-hmm. yaatal ngeen ñu gën ngeen ñoo may fit ma gën ngeen ñoo may courage yéen ko mu ngeen bëgg yéen a ko xam yal na leen ko yàlla defal waaw mm-hmm. ah, xam naa fa la bàyyi euh, di leen jox dig daje si internet kaay si bu gën a ñëw incha allah jërë ngeen jëf